billahi min asheytaan rajim rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi comme ni ngeen ko waxee ci njàlbeen jotaay bi rek ki dafa tëdd bi nga xamante ne moom la am tey ñu fas yéene koo dalal ci jotaay bi muy Cheikh Mouhamad ibn Arabi Niass bàyyi ko ba Kaolack fële ca lew na seen incha allah moom lañu dalal fii tey ci laaj mu ànd ak doomam Serigne Mouhamad Khalifa Niass ànd ak tamit beneen doomam bu ñu wax Serigne Alxaaji Abdoulaye Niass di ingénieur ci wàllu informatique mm-hmm. incha allah mu fas yéene ànd ak ñun tey ci tomb bu am solo bu mat a bàyyi ndax mooy suñu lépp muy suñu mag ñi nga xamante ne moom lañu yàlla baax mag ñooñu naka la nekk woon naka la doon dundale diine ci lan mooy relation yi nga xamante ne moo doxoon seen diggante nekkin woowu nga xamante ne moom lañ fi nekk woon tamit nekk mu rafet ñun ñii nga xamante ne ñoo fi nekk tey yan bind lañ ci mën a jëriñ ak naka lañ ci mën a jëriñ loolu nag lu am solo xamante ni incha allah tey jii nii moom la fas yéenee ci jotaay bi tey bala ñu koy jox kàddu gi rek damay tënk as lëf rek ci ay jaar-jaar yàlla baaxe ñu ko ci atum 1945 fële ca kaw la mu jàngee foofu alxuraan karim tamit ci réew mi ñeseen ba ci atum 1959 ci la wàllu alxuraan karim ginnaaw bi mu jeexalee njàngam alxuraan la jóge foofu ci kawar dem fële ca Ndar ngir sàkku ji xam-xam ci wàllu diine tàmbalee fi sëriñ Ahmad Yaan Si mm-hmm. ak mboole borom xam-xam yi nga xamante ne nekkoon nañ foofu ci Ndar te ñu fa daan sàkkoo xam-xam ñoom mu jaar ci ñoom kenn ku nekk mu taaral ci wàllu ba ci ci la ko Baye Niass jëlee ko moom yóbbu ko fële ci Maroc mu continuer njàngam foofu noonu ginnaaw bi mu jàngee ci Maroc ba jeexal ko tamit la jógewaat Maroc dem lii lépp rek ci continuer am njàngam ak sàkk xam ginnaaw bi jógee lii tamit dem na Égypte lépp ci sàkk xam ba tax na ci pays yooyu noonu fenn fu nekk lijaasa ya nga xamante ne moom lañ ko war am rek am na ko ci pays naa yooyu ginnaaw bi ci 1975 la fii ci Sénégal ci 1976 ñu nommé mu nekk professeur ci lycée bu Faidherbe ñu koy woowee tey lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall bala dem ci Ndar kon ci lañ ko affecté mu nekk professeur di jàngale foofu ci li lycée fédéral bu Ndar foofa la nekk di fa jàngale ba ci 1983 ñu nommé ko mu nekk njiitul inspecteur yi nga xamante ne ñuy yëngu ci wàllu langue arabe di former ay jàngalekat ak di leen ci région de ak région de Ndar région moom mu nekk seen njiit ba ci loxoom ñu baree bari ci ay jàngalekat euh, ci lañu jaare ñu formé leen dugal ci daara yi nga xamante ne moom la gouvernement fee ñu jàng ci atum 2000 nag ci la jël retraite mën na maa ne ci la jël retraite ci wàllu liggéeyu administration waaye nag jël retraite ci wàllu gi nga xamante ne ci lañu yëngu mooy liggéeyu diine ndax ku ko xam ku nekk xam ne bépp géew boo xamante ne géewu islam rek soo ko demee nag fekk moom bi nii rawatina li nga xamante ne mooy eh, boole këru diine ak di leen lëkkale ak di leen beral eh, ñu def ko mu nekk imam ci eh, jàkka jumaa yoo xamante ne ñu ngi foofu ci Ndar waaye ci 2011 nag ci lañ ko ci la ko kilifaam woo muy ñu si fële ca kaw ca nga seen ñu jox ko jumaa ji nga xamante ne moom nekk foofu ci Léona Niassène mu fay jiite ak di fa soññee ci wàllu diine naka noonu diir boobu nga xamante ne nekk na fa Ndar daf koo may occasion mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo sos kuréelu ñaari raakaay yàlla yooyu mm-hmm. mm-hmm. na ci ñi nga xamante ne ñoo kon liggéey bu am solo loolu nga xamante ne naka jekk ci la ba fii wax ne dañu ci liggéey boobu noonu loolu mooy li nga xamante ne moo ko indi fii tey bokkul jataay bii nii te yàgg ko bokk ci yeneen dëkk yi bokkul bii li mu fas yéene waxtaan nag ni ma ko wax ci njàll rek mooy suñu mag ñi nga xamante ne ñoom lañu yàlla baax ni nga xamante ne ñoom fi nekk woon di dundal l'islam bi ak ni nga xamante ne noonu lañ benn woo seen bopp liggéey boobu nga xamante ne liggéey bu sell boobu nga xamante ne moom la suñu mag ñi liggéeyoon te liggéey boobu naka lañ war a jëriñoo kon insha allah tomb xamante ne moom la ñu fas yéene baaxate jii xam naa ne bu noppee danañ jox kàddu bi euh, sëriñ alhaaji abdoulaye nas su ko defee moom nit yëkkati ay kàddu toftal ko ci kàddu yi nga xamante ne moom la waaye doon yëkkati jotaay bi incha allah xamaa ne bala ñu ko jox kàddu bi rek ñu fàttali mbooloo mi ne euh, programme rajo yi nga xamante ne ñooy jàllale euh, waxtaan bi xam naa ne teewlu fi nii waaye nag ñu limaat rek rajo yi site internet yi ak télévision yi nga xamante ne ku bëgg a àndal ñun ci waxtaan bii nii. soo soo soo jaaree foofu rek danga ci mën a ànd ak ñun tàmbalee ci Darou Moukhty FM waxtaan en direct lañ koy def te bis bu nekk danañ ko tegaat ñetti waxtu wala benn waxtu bu tegalee fanweeri nit ci bëccëg naka noonu Diso FM Lamfar FM RTS Touba Mbacké Sud FM Walfadjri RFM Jant bi ak Touba Média ak rajo Touba International rajo yi yëpp ku ci. di ku ko déglu rek incha allah da nga mën a àndal jotaay yi nii naka noonu Touba TV wala Al Mouridiya wala Lamfal TV yooyu tamit daan jàllee waxtaan bu dee ci internet yi euh, al azhar touba point com Al Wafa Daaru Vision Touba Info ak euh, xasida online ak yeneen site internet yoo xam ne incha allah def nañ ko baax ci waxtaan yi nga xam ne moom la ñu kon bala may guddal rek. damay jox kàddu bi sëriñ bi ci tomb bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee yàlla na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wasalaamaaleykum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 qaala tabaaraka wa taala fi muhkami tanzili rijalun sadaqu maa ahadu llaha wa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantazir wa maa baddalu tabdila sadaqa allahu alazim wa qaala fi ayatin uxra wa fi suratin uxra aydan wala taxsabanna alladina qutiluu fi sabilillahi amwaata bal axyaaun inda rabbihim yurzaquuna sadaqa allahu alazim wa qaala shaaciru udkur xadiisa saalixiina wa sammihim fa bidikrihim tatanazzalu raxamaat waxdur majalisahum tanal barakaatihim wa qubuuruhum zurha iza maatu bokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ci jamono ji ñu toll nga xam ne civilisation dafa mujj de inverse civilisation civilisé la woon waaye léegi ndof mooy civilisation ci ñenn ndof ñàkk a gëm sëriñ ñàkk gëm dara nañ nañ màbbu xabru yi nañ màbbu bàmmeel yi ndax nangam ak nangam loolu loolu mooy li xew léegi waxuma mooy li civilisation sëriñ Ahmad Ayaan si doon wëllëre lool sama baay moom lañ tuddee Ahmed Khalifa Niass soo wéeteeg moom mu romb la nga ne ko iyaan ñas mu ne la yow day xam nga ma nee na ma dépôt dafay yàgg yàgg yàgg ba mujj gi nit ñu bari soobu ca mu mel ni qualité waaye dépôt du yàgg mukk ba muy qualité mu ne man damaa toog fi ma toog utiwuma kenn léeg-léeg ñu ne ma diw sa jarbaat bi xanaa mooy ministre nangam demal mu jox la nangam te laaj ko nangam mu ne man damaa foog ne ab taalibe toog rek ku la jox baax na ku la joxut baax na mu ne waaye léegi loola qualité la woon li ma nekkoon waaye dafa yàgg ak jamono ba jamono transfert ko muy défaut allahu akbar maa ngi ñaan mbooloo mi fi teew yépp ñu may ma benn qul wallahu ahad jàngal ma ko ma ziyaaraa ko roxo gu mag googu di rakk joo xamee ne ñim gënee ñëpp la gënee rakk mooy Cheikh Ahmad Bamba rakkam ju baax jooju di maam Ceerno nga xam ne ba ko yàlla ooyee moo Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba ko contrat de travail boo xamee ne njëgg nattu lay doon bu doon man ma ne ko bëgguma mu siñeeloo ko ko ndax inna allah ashtara min al muminina anfusahum wa amwaalahum njëgga mooy aljanna bi anna lahumul janna mu jël njabootam sang bi sëñ Isaaka wax na ko fi ay ay doomam dénk ko maam Cerno dem natt bu ne ñu natt ko ko mu régisté ndax xamoon na ne moom tant que demut lii muy ut si du ko am waaye tubaab bi réeréewutoon réeréewoon na loolu mbir mi mu ñëw fekk fa tabarakallahu maam Cerno la waroon a nekk ca njaboot ga yépp rakk ju baax jooju def ko ci rakk jooju lay ñi alquran di wax wal yaxsha alladina law taraku min xalfihim zurriyatan diaafan xaafu alayhim falyattaqullah ay fil yataama fa xusifa lil maaluum borom alfiyat ibnu malik nee na wa xasfa maaluumin ajis laaye jooju day wàccut ci rakk ju baax jooju kon waxtaanu tey wii tey daf ko laaj lool man loolaa gis mooy mag ñi nan lañ meloon ma njëkke ci ki ñu bari xamut muy sama maam alhaaji abdallahi Niass teg ci cheikhul haaji malik teg ci sëñ Touba wax ñoom ñaar seen lañ bokkee lañu relation lañu melak ak loola yaakaar naa ndaw ñi dana kat lool temps bi waaye ay not laa ko bujja def sax binduma ko alhaaji abdallahi Niass mi ngi juddu vers 1845 ci Jolof boo demee dëkk bi ñuy wax ngiij dëkk ba béeli la tudd waaye gent na mu tuddee woon ko Madina moom la bàyyi gis dëppee Madina bale dëkk booba la alaaji Abdoulaye Niass juddoo foofa la jàngee ci baayam ngi tudd Mouhamad Niass yaayam tudd Khady Gaye mu nekk ci baayam Mouhamad Niass Mouhamad Niass moo ko jàngal nee na jàngut ci téere ndax téere dafa léegi la yomb waaye amutoon day ñëw rek mu sako bu mokkalee bu ñëwaat musako sako ba nim tari alquran amut téere amut àlluwa yàlla def nag Mouhamad Niass moomu maba jaxu oolu ko mook maam Mor Anta Sali ne ko yéen da ngeen maa soxla dama leen a soxla jël Mouhamed Niass di bàyyi alhaaji Abdoulaye Niass noté waxuma ci alhaaji Abdoulaye ñëwagut sancal ko dëkk bu ñuy wax ñeseen waalo maam Mor Sali mu sancal ko porokaan furqaan lañ la la recherche chercheurs yi ne furqaan la dañ koo yàq suma doom bi bu judd bu jëlee dana ci gën a am loolu mu looloo tax ngay gis poroxaan ak ñeseen tey ba ñeseen ñëwagut nekk ñu dend ma ba jaxu ne maam Mor Anta Sali mu ne ko ah xare bi yaa yor seen seen sécurité seen sa course gii mooy dundal xare bi allahu akbar mu ne alhaaji Abdoulaye Niass yow yaay firil alquran xare bi sama maam nekk ca loolu kenn ku ne nekk ci sa mission moo tax Mouhamad Niass moomu foofa la gaañoo ñu suul ko fa ñaseen foofa la gaañoo moom ak soxnaam maam alhaaji nag baayam xaadir la woon Mouhamad boobu tariqa xaadiree la jëloon ndax bu leen fàttali ne tariqa xaadir moo njëkk tariqa tiijaan juróomi téeméeri at maanaam cheikh abdul qadir jaylaani feeñ na bañ teg ca juróomi téeméeri at seydi ahmadi tijaani soog a feeñ léegi nag ba mu demee ba mu jógee jolof mu bàyyi fa doomam alxaaji abdallahi ñas alxaaji abdallah yor jàkka ja yor njàngale ma wuutu fa baayam ndax baayam dañ koo able ma nga saalum comme ni ma leen ko waxee léegi yàlla def eh, maami Moustapha Cissé Tafsir Abdou Cissé maamam ku jege woon tubaab bi la conseiller technique la woon rëppatal fasam ñëw ne ko bàyyi mu ne ko ah mu ne ko bul fi fanaan de mu ne ko ah, lan mu ne ko dégg naa ndey loo xam ne ci tubaab bi boo fi fanaanee danañ la sàkkal pexe danañ la nàngam jógal nga dem ne ko nag ñaanal ma yàlla ba secret bii ma la wax confidence bii ma la wax bu mu bu mu bu mu siiw maam alaaji Abdalaay ñaanal ko yàlla fas wa saa yu rëppatalee fas saa yu rëppatalee fas wi rek nga gis bu teggee rek foofa dig max maanaam amut amut amut luñ ko luñ koy mën a xàmmee ba mu dellu ci tubaab ba maam alaaji ne lu dul téere baleen ko fi lu dul téere jigéen ak góor ak ñépp jël téere yi di dox di dox di dox di dox ba génn senegal daal di nekk sañc dend dëkk tuddee ko Faas ndax ndax nim dofee ci Seydi Ahmadu Tijaani dof sama baay gën koo dof moo tax day ku ku am pëstéef ñun ñun ñii waa ñeseen duñ la ñaawal mukk ndax sama baay man mii am naa alaaji Ibrahima mii di xalifa bi ibnu yi moo topp ci kawam kooku dafa gaañu keneen ibnu yi topp ci kawam mu gaañu ay cheikh yu jigéen topp ci mu tuddee kële yaay Seydi Ahmad Tidiane lalla Aïcha kenn ka yaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu gaañu ma topp ci Ibn Arabi lan la woon dabraw yi bëkk néegu Seydi Ahmad Tidiane ku jël bëkk néeg bi tuddee ko ñetti doom ñu gaañu noo war a mel ci sëriñ bi xanaa fu ñuy waxee nangam yow doo wax na diw dof la xanaa doo ko wax loolu laa bëgg ngeen dégg ko dinaa ci ñëw ba mu ko defee maama euh, maamalaaj léeg-léeg damay réer nag maamalaaj yi maamalaaj Abdoulaye ah, dem Gambie Baye Niass toog naa ci Maroc mu may nettali mi ngi mi ngi tëdd ci lal bi def nii maa ngi janoog moom mu ne ma gàmbi googu sa maam def na fa fukki at ak ñeent képp koo xam ne man mii bàyyi ñas man maa la mag gàmbi nga juddoo ba yàlla def cheikhul haaji malik si radiallahu anhu moom juboo woon naag tubaab bi moom il a fait une guerre dinaa ci ñëw sëñ Tuubaa nag def ne maa lànk maa bañ duma masalaa duma duma duma duma duma dinaa ci ñëw axrajtumu nii naafiqiina bi annani abdul waaye wa innani la mujahidu kenn ñi moo ko wax tubaab bi bu doon tey innani la mujahidun ah c'est leer rek axrajtumuni génnee ngeen ma naafiqiina mbir ngeen di aji wax bi annani naka man jaamu yàlla laa bu sell bu propre allahu akbar wa inna nii la mujaahidu man dama leen de xeex maanaam boo billaay booy jàng xasida yi benn waaye dama ne ko eh, ngeen baal ma nee na nee na jublu sëñ Touba pour ne pas dire bugg ko moo taxit xulubu man lam yuhibbuuni foofa la jëm ala wajalin wala yulaaquuna ma raamu wala albaaba ma ne ko waat naa ci yàlla ne ni nga mënee jàng arab di bind ay téere boo jëloon benn ci téere yi sëñ Tuubaa yi billaahi boo ko jàngee par force da ko bëgg boo ko bëggit da ko bëgg ndax xam-xam bi da ko bëgg ndax fit wi da nga ko bëgg ndax njàmbaar bi da ko bëgg ndax honnêteté bi waa ji ne ma la waa ji wax nag laay wax ba kenn dóor ne ma ay mushrikuuna lañ ma ne ko ah rek daal lu commencé ni ñu koy waxeeti ne na nag man waykat yi yëpp ma neex waaye xaadim géey nag mooy sama waykat billaay bu ma la ko xaaral ma jàngale ko ñaata nga may fay rek daal den yi nafsi li rabbin la sharika lahu ma alladi qafuhu shughli wa hajati mais mais waa ma ne ko ki ngay naan musirkuuna la mu ne ma c'est pas possible waa ji naan may kii rek ah ndeg ah xaw ma koon moo tax xam nga loolu wóorul boo jàngee am référence mu ne aslamtu nafsi li rabbin aslamtu nafsi la sharika lahu oh, jël naa suma bopp ma jébbal ko suma borom damay denc parenthèse bi ba ci kanam ma dem ah. waaw maam alaaji Abdoulaye maam alaaji Malick woolu ko comme invitation lii may wax Baye Niass moo tëdd ci lalam 1966 sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nekk nële kenn ku ne sa appartement mu ma koy nettali may dégg maam alaaji ñëw nekk ganu Cheikhul Haaji malik Cheikhul Haaji Malick waxu ko dara mu jël jàkka jàkka ja jax ko jël jàngu ba jox ko dugg saxaar waxu ne maa ngi dem defal la intervention dem ndar gis tubaab bu ñuy wax Carpo intellectuel yi xam nañ li may wax neexal ko juróom fukki dërëmi nguur di fexe ba tubaab bi gëm ne alaaji Abdoulaye moom xeexut fexe ba xam ne alaaji Abdoulaye moom maanaam ñëwut pour xeex tubaab bi léegi nag maam alaaji Maalik Si moo ko garanti li may wax lettre bi sama doom bi nga xam ne am na licence sciences ko moom mii mooy sama taaw xalifa indaale na texte lettre bi indaale na lettre cheikhul xadim danaa ci àgg dama na ko boo ko wonee dañ koy nuñ koy waxeet boo xamee ñaari lettre cheikhul xadim ña nga ca waaw ku ñu wé mane da day yomb lool nag demoo fenn nga ñun ñu jël suñu oto def ci gasoil pare ñëw war la ko ñibbi loolu yomb lool nag ah déedéet baalan <laughs> ah a ah, imaam day yomb lool de jaay ma ko de waaye loolu day yomb waaw ku ñëw Kaolack ñëw ba lew nañu seen nga laaj ca arab yi arab yi ñes ñu ne arab yi bëri na de dama ba bëri turandóor ak ak ak euh, sang bële nga ne arab yi ñes imaam bi ñu indi na bu ñu waree ba pare maa la mbindam sëñ Tuubaa ngi nii waaw léegi léegi maam maamalaaji tubaab bi may na ko ci contrôle résidence surveillée maam alaaji ñëw bàyyi ko fi war fas mu war fas mu ànd moom di ko gunge ba gosaas mu ne ko boo demee nga jox ko euh, bolakaar maam alaaji dafa dofoon ba nga xam ne xamul koy bolakaar dafa mel ni ñoo la Macky nga ne kuy Macky Sall mu ne ko kuy bolakaar dara la ñu xamutoon ci àdduna dara mu daal di dem jox ko leetar bi ñu ne ko may nañ la fi résidence may nañ la fii nangam ñi ngi ko dëkkaloon ku mën Kaolack ci dend ak marché Kaolack euh, ah euh, fi ñuy fayee retraite yi nu tudd trésor trésor koñ boobu ku mën Kaolack ak école nangam ko gadeel gadeel mbóoj foofu lañ ko mayoon maam alaaji fanaan fa génn guddi dal di ñëw ba lew ne mu ne na dama fiy toxu tubaab bi yoon yónni mbutu sow mbutu naw na ko bàyyi fii àll na di mu ne ko lew na ma domm lew na ñaseen lew na ñaseen jooju looloo ko indi ba mu ko defee maam alaaji Malick yëmu ca daal wax sëriñ Abdou Hamid Kan ne na ko utal gayet waaw mu utal ko juróomi téeméeri gayet yónnee ko ko leetar ne ko ndax ma indil la ko tuyaawoon mun ne ko demoon nga jox ko Abdoulaye ne ko maa ko dimbalee ci sanc bi maam alaaji Abdoulaye lii may wax mi ngi xewoon 1911 la xewoon 1922 maam alaaji Abdoulaye nelaw kon xam nga yàggul kaw wax ndeysaan bii maam alaaji Abdoulaye eh, nel bàyyi ña si moo ne ma waaw parce que damay damay génne suma source nee na ma talaata la ma 22 talaata la la alaaji Malick nelaw talaata ba dellu si àllarba ja alaaji Abdoulaye nelaw bàyyi ñes nee ma ba ñëwee di ko tàgge maam Khady Diaw moo jur Baye Baye Serigne Mbaye Niass moom lañ tuddee Serigne mbay Thiam moom lañ fekk ca teen ba ñu tàggee ko ko alaaji Malick ne ko wax ko alaaji Abdoulaye mu ne du ma ko ko wax de ndax xaritam la woon nitam la te mi ngi ci lala feebar daal di jël këll ba duy ko ba mu fees ak ndox mu ñëw sama maam oo ko kati jaw mu ne ñas mu ne ko lu ngeen doon wax ca teen ba mu ne ko waxuñ fa dara mu ne ko li ngeen may nëbbu lan la mu ne ko ñas yaram wee tàng nëbbuñ la dara mu ne yëg naa ko Malick dem na xab doo ngi waaj li yóbbu tëgg du fa bàyyi upp ya mukk allahu akbar talaatay Tiwaawan alarbay ñaseen bakkan bu doon lam kon borom wekki ko léegi ba ñuy xale yi tout tànk lañ daan dégg waykat yooyu di way léegi nag Cheikhul Khadim yëg ko daldi jël délégation Serigne Mbacke Bousso mu ànd ak juróom ñeenti nit xawma leen waaye Serigne Mbacke Bousso moo jiite woon délégation ba mu dem Tivaouane jaale si jaale si Tivaouane ba pare mook délégation ba daal di ñëw Kaolack Serigne bu Bousso ba mu ñëwee Kaolack ba wax ak sama baay yi sama baay ma fa ma ma fàttali leen rek ne mooy taawu Alaaji Abdalaay Ñas Xalifa Ñas moo magee Baye Niass Baye Niass dafa am ku ko laaj ci Maroc doomi magam la ne ko damaa bëggoon doomi maam alaaji nga wax ñu nuñ magantee mu ne ñun ñépp xalifa moo ñu mag man day magee na ma ñaar fukki at ak dara ñaar fukki at ak dara dégg naa sax ñu ne bi sama maam gaañoo bàyyi Niass ak ñu ndaw ñi bàyyi lañ ko daan wax mu oo leen nag ne leen seen mag laa du matuma seen baay bu ma kenn waxati baay dem ngeen booba lañ ko gën a xam léegi sëriñ Mbàkke Buso lew na ña seen fële téye kayit ga rek daal commencé di bind yaa salmatan fi diinina al min qal'i qarnay hammati al islaami wa shamsun aama shamsin gaabata fa bakal wara li takaasufi azlaami waa maalikan li sunnati algarraai wa li duafaai wal aytaami maa laysu gaylin mislu abdillahi est-ce que Mbàkke Buso Mbàkke Buso ne jant shamsun jant wa shamsun ak beneen jant bee di alaaji malik bee di alaaji abdoulaye raabata sonañ ama shamsin boo ko calculé muy muy 1922 fa bakal wara li takazubil azlami waa malikan mbàkki sama bàyyi ngi toog mu ne ko waa malikan maa ngi jooy alaaji malik mu yóbbaale alaaji abdoulaye li sunnati algarrai ay albayda Mbàkke bu sene maa ngi jooy ñaar ñi nga xamee ne seen tànk ñi ngi ko tegoon ci sunna estop xam naa gone yooyu sax newuñ fi gone yi mel ni sunna bërki démb la ñun ñooy waa ahlu sunna ñun ñooy waa sunna ñun nàngam nàngam déet yow murit nga déedéet ñun ci waa sunna lañ bokk tijaan déedéet ñun ci waa sunna lañ bokk ñooñu day ñooñu day ñooñu day war na ñoo xam ne Mbàkke Buso bam naan waa malikan li sunnatil gharra'i mu ne ñaar ñu tegoon seen tànk ci sunna wali du'afaa'i wal aytaami lu ñu am jox ko sama maas gi ñu amul dara yelloo asakaak lu ne mu ne lii day liñ fi nee ma ne def leen ndànk sunna commencé wut quatre-vingt quatre-vingt dafa am dafa am man damay damay wax naa lenn man maa maa ngi nuyu docteur xaadim ñaari xaadim yi xaadim bu docteur ñoo doon jàngandoo xaadim awa balla yaakaar naa moom la ak xaadim bu ifa ñoo bokk benn bés bu ñu fi génnee le 8 octobre 1965 dem jàngi xaadim xamu naa docteur lay doon fu mu gisaan mbott jël ko dugal ko ci westam bi waaw boo waaye li ma bëgg wax mooy ñiy contre sunna ak mu mel ni ñoom sëñ Tuuba ak alaaji Maalik soom ñoom kay yeneen yoon lay nekk waaye ñun waaye ñun ñooy waa sunna ñun ñooy waa sunna ñooy ndàngam ah, góor gii jaar allahu akbar naa ci ñëw nag bu ngeen fa jaaroon xam léegi loolu loolu lu fi war a lu fi war a la maanaam jéem a xeex façon xeex bu ne xeexee nañ ko tariqa xam naa ci lu bu baax a baax a baax a baax pour génnee pas-pas ci xol nit ñi ci tariqa la imaamu Malik waxoon imaamu Shafii imaamu Shafii taalibe imaamu Malik la moo ko jàngal yar ko mag ko fuuf imaamu Malik imaamu Shafii mën a jàng ba pare beru di jàng ci asruqam imaamu Malik it di jàng asruqam di sëriñam bi saytaane yi ñëw boole ko naka saa waay day doose di ah léegi ngay def lay dem mbagg ngay jàngale bi muy jàngale bi a yàgg imaamu Malik bi mu sa jal koo xef nuyoo ko nii nuyoo bu gàtt mu ne daal li ma ci xam xaaral ma tàggu ko daal di ñëw dell ne ko suma sëriñ mu ne ah mu ne ko dama bëggoon nga bàyyi ma ma dem Misra mu ne ko waaw waaye boo demee na nga dëkk ca capital ba bul dëkk ci kaw dëkk kaw day tardé nit li imam Malik ma ko wax boo demee bul nekk opposition ndax yow borom xam-xam nga yow Shafi borom xam-xam il faut que mbooloo nekk ci gannaaw dégg nga wax ji de buur nag borom mbooloo moom mooy moom mooy noonam léegi imam Shafi ci tënk taxu maa jóg dal di ñëw Égypte looloo tax fiqhu Shaafi yi xaw a gën a yaatu lool fiqhu yi waaye lu tax suñ mag ñiy gëm imaamu Malik mooy Malik ñaar lay référé woo kitaab ak sunna te yonent bi jamonoom kitaab ak sunna mag ñi it kitaab ak sunna rek arrangement ak dérogation yooyu maam alaaji bu daan jàngale ba ci baatu waru xisa waru xisa mooy lan yow la mbaleef nañ mu tëb ko ñu ne ko yow alaaji yow lu tax lu tax baatu bu ruxisa doo ko nangu mu ne nit ku naqadi woon baat la loolu la bàyyee doomam yi wax mu ne nit ñi boo leen ubbeelee boo leen leen ubbeelee fenêtre ñu def ko buntu kër moo tax baatu dérogation ñu def ko buntu kër kon foofu laa ciy tëj diggante moom Cheikhul Haaji Malick moom moo waxal boppam moom sama baay ndax léeg-léeg ngeen ne ma waaw sama sëriñ ci lañuy ñuy jaar maam ñu naa li ngay wax ci sëñ Tuubaa dafa ëpp de ma ne ko dëgg la de sëñ Tuubaa dafa ëpp nit de mu jaar jaar jaale nañ la sëñ Tuubaa dafa ëpp nit li may wax dafa ëpp waaye moom it dafa ëpp nit de ndax fi mu jaar ku fa mas jaar jaale nañ la waaw wax ma ku fa mas jaar rek jaale nañ la léegi maam alaaji Abdoulaye yónni taawam xalifa ñas mu dem ndar gis alaaji Malick tafa taxawaayu jullit bu rafetal bii mu gërëm ko ci maam alaaji Malick sama baay taggee ko xasiida bii may bëgg wax nil na almaraama wa nil naa qaasiya alxaaji min yumni nayli liqaa'i sayidi alxaaji asheyxu malikun albahrul xidammu wa man bihi tadan naasu fawjan baada afwaaji imaamuna wa habibu sheikhi walidina wa xayru man lam yaxit in yarjuhu raaji waasaa bukuuran bi tadrisi alulumi wa idlaajan bi tuuli qiyaamin baada idlaaji kam taami si dikri qad amsa bihi alaman wa kam azalat yadaahu faqra muhtaaji laa ayba fiihi siwa ma haza min karamin yunsi alqariba wa yahdi xayra min haaji yura ladayhi dawiyu dikri yuqizu man qad naama bi loodo aw sindooni lilbaaji yubdi alxawaariqa wa huwa almustaqimu ala musli tariqi bila xusnin wa izhaaji salla alayhi ila xayril wara wa ala sahaabihi muxtafa athaarihim naaji sama bàyyi lii nar la ko way yaa ngi dégg loo doog si noonu sama bàyyi ne karaamay Cheikhul Haaji Malick boo ko bëggee xam quartier bi ñuy wax loodo ak sindooni doo fa mën a nelaw nelaw fajar ndax écho écho yi wasiba yi te loolu boobu amagut te boobu wasi boobu fajar yi ñuy teg euh, rajo yi amagul sama bàyyi ne loolu doo mën a nelaw moo tax mas naa wax sëñ Abdou Aziz Junior suma xarit la lool ne ko doole ji Cheikh Tidiane si almaktuum am ak ji nga am yéen ñëpp bu ngeen bëggee xam karaamay alaaji Malick na mu defee bañ may ko zaawiya bi mu dend ak palais de la république nga dem ca ndar ñu may ko fa zaawiya mu dend ak gouvernance doonoon gouverneur u AOF wala AOF AOF moo ko daan ne ma ne ko yéen ñëpp bu ngeen bokkoon gée gis génn kër jënd ko bëgg koo tabax jumaa bu guddee ñu seet si leen ne waaw xam nga baax na waaye yëmbal day mën nañ leen faa may ca ñunu neen la nag dégg nga woo ko ca kat ñunu neen la ñëw ne sëñ bi ñu naa ñu ne yëmbal wala malika lañ la bëgg a yóbbu maanaam boo buggee xam seeni teraanga loolu la suma baay man sax mokkal naa ko waaye loolu lañ may jiiñ maanaam ci saraa bi suma baay dafa wax ci Cheikhul Haaji Malik ne wajadtuhu fi ndar fa aaxaani mu aaxaata shaqiqin li shaqiqihi wa huwa rajulun sunniyun gis nga baatam sunna dellu si zahidun mutawarriun fi axzil hadiyati laa yaaxuzu hadiyati kulla man ahdaahu wa innama yuraai ashariata fiha sama bàyyi na fekk naa ko ndar waaye nit la koo xamee ne ku baax la teg teg teg ku tegu ci sunna du ku ko hadiyaal rek mu jël ko waaye dana seet ca moom sharia benn waaye daf ma doon corrompre te man xaw ma ko dafa ñëw jënd ab basin bu diisab lëmm jox ma ko ak fukki junne ne nga ñawloo ko ma wax ko xam na sëriñ rek lii ma ne ko dee déew ma ko may mu daal di dem ci sama mag boobu ba moom féetee mag ne ko ah man nag loo may dimbalee mu génn dix mille jox ko mu ne ko yëg naa li nga defal arab yi mu ne ko yaa arab yi bokk leen de arab yi bu amee problème guddi gi ne ko xëy dëgg waajeeg mooy borom waaw mu ne mu ne ko yaa arab yi bokk leen arab yi bu amee problème boo ko waxee mu seeti gouverneur xam ne numéro kilifa yu bëri xam nga am na hadiya yoo xam ne yu bëri corrompre la corruption la mu ne nag du lekk hadiyay corruption loolu lañ àndee woon di ay bokk gis naa ci euh, rapport politique ca dégg naa benn waaye neen ma tubaab yi ñoo ñu gën a xam suñu bopp rapport politique boo xamee ne tubaab bi def ne maa ngi lay yëgal ne alaaji Malick si boo gisee muy dimbale alaaji Abdoulaye pour mu dellu si parce dañoo bokk par cousinage musuma dégg nit wax ko mu mu def tere foofu par cousinage ah, en tout cas jolof lañu lañu la ñu xamante maam alaaji Abdoulaye nag bi mu jógee bi mu nekkee jolof maa ngi jëm ci sëñ Touba maam Mor Jaara magi mag borom saam mook maam alaaji Abdoulaye wëllër la lañu woon lool fu ñu xamantee xawma ko waaye wëllërante nañ ñoom ñaar di ñaari waxambaane maam Mor Jaara ne ko Abdoulaye mu ne ko ha mu ne ko maag yow ëllëg ku ci njëkk a génn àdduna sa morom na taxaw ci sa bàmmeel jàngal la fa suuratu Yaasiin dégg nga mu ne waaw maam alaaji it wax ko ne ko Mor Jaara mu ne ko ah mu ne ko ëllëg bu ma génnee àdduna bu ma la njëkkee génne àdduna naka taxaw suma bàmmeel jàngal ma suurtu Yaasin yii ndaw xool leen yii ndaw xalaatuñ 24 décembre ndaw yii xalaatuñ 31 décembre man xam ne boo ko tuddee boo boo tuddee dabba la ca tegu dee lay doon 24 dee tarante dee loo tudd dee lay toog te yow ñu ne da ragal dee te ñeme weer bi doy na waar la foofu day laayam léegi nag maam Mor Jaara njëkk nelaw maam Alaaji Abdoulaye oo suma baay ne ko mammat mu ne ah mu ne ko kaay nga dem jaaleel ji ma sëñ sëñ sëñ sëñ Amadou Bamba sama baay daan wax ne sëñ Touba yàggut mu ne Amadou Bamba lañ daan wax waaye na nga dem njaareem asafura nga taxaw ca bàmmeel ba nga jàngal ma fa ñeent fukk bi yaasin ah nga joxal ma ko yool bi ndax loolu lañ diglante woon man ak moom sama baay dugg saxaar ñëw Mbàkke xewar xam naa bu baax a baax a baax Mbàkke xewar moo nga den nag ku ñuy wax njaayeen bari nañ fiy taalibe lool waaw benn waay ne ma suñ conférence bi jà jàkkay tiijaan nga ñu ko arab yi ños di defar ma ne ko dangeen di dindi jàkkay la ca topp waa nal moo ci xew da waaw léegi maam alaaji ñëw suma baay ñëw taxaw ci bàmmeelab sëriñ Mbàkke Buso non non baal ma maam Mor ci Mbàkke xewal jàngal ko fa yaasin dellu njaareem tekki fa sang bi sëñ Tuubaa bi première gis-gis sama baay ak Cheikhul Khadim mooy at mi maam Moor Jaara nelawee mu ñëw di ko ko jaali si sëriñ maam Moor Mbàkke Murtada nee at moomu la baayam gane àdduna ma def benn parenthèse sëñ moom Maamoor Mbàkke Murtada man moo ma boole ci mbir mi dégg nga wax ji dama ko fekk Italie xanduñ de ñu invité ma ca conférence ba dëkk ban la woon Napoli mu ngoog ma dem ba may dem xam nga lu ma sóoram hmm, muustu fi naanee ñeex da tiijaan yi dem leen seen yem leen seen palaas nangam loolu laa defoon sama bopp bi képp ma dem gis contraire mu ne nañ indi fauteuil ma ne ko mbàkke fii baax na mu ne ma dama toog ci fauteuil ngay toog ci fauteuil waaw muy wax ba ci may wax lu mel nii rek mu daal ne addiyee sëñ Tuubaa ni génn nit ñi génn ba xanaa bi di ma jox di ma jox di ma jox di ma jox ba mu pare bër bu set mu jox Ablaye Mbaye peex deux cent euros mooy cent trente mille na naa ko ndékkee ma ma ma ma dem a dem ba ci kanam ñu may sànni portable yi di ma sànni portable yi di sànni mbaxana yu ñuul yi di sànni montre yi muy 83 portable ci lu lu mot a 30 mu ne ma am sa addiyee maama ngi nii ma ne ah portable yi naan ceeb ceeb ma ne ñu ne oowuñ ma kaay leen jël seen nu tudd piis xaw ma ñu ne ma barke Sëñ Tuubaa dootuñ ko laal ma jël micro bi. na waat naa ci yàlla na bii pas-pas ku duut sëñ Tuuba amoo ko ci taalibe man nii day démb laa dem Napoli suma benn taalibe ñëw ne ma gëmuma sëriñ gëmuma sëriñ ma ne ko am nga ci droit am nga ñu gëmut yàlla ñu leen di wax les les athées athéisme suma ndeyee suma sëriñ man ne ko doyut mu ne ma doy na ma sëkk ma ne ko bàyyil ceeb bi ak dugub ji cere ji nga dellu ca ween way nàmp léegi nga dee waaw yaa ngi yaa ngi ko yëg man sama taalibe ñëw ne ma gëmatuma sëriñ ma koy convaincre kee nag ñi ngegenaayoo soror bi ci Touba ñi ca Italie ca Espagne waat naa ne ñoo leen ëpp Pastef loolu ku dul sëñ Touba il faut ñu reconnaître ko loolu laa bëgg a wax mu jigi daal ma gis jëf ji jëf ji jëf ji ba jaag ma ne daal sëñ Mahamor Mbàkke Murtada jëf mu jëf daal ku sëñ Tuubaa jur sa wala mu jur sa yaay mënoo ko wa maa aybuhu illa ibadu fi rabbihi wa naf'ul wara fi subhihi wa masaayi loolu ko Cheikh Sidiya wax wa maa aybuhu nag la waxoon man nag tey wa maa aybuhum laay wax waaw man mi jaxasoog ñëpp mbàkke mbàkke yi wa maa aybuhum illa bi rabbi wa naful wara fi subhihi wa masaayi ma gaaw gaaw gaaw gaaw léegi maam alaaji sama baay xalifa Ñas dañoo am doole lool dànk seen bëri fii taalu bi bëri ko cax ñan moo tax bu ma demee dànk seen gane ba ca ëllëg sa muñi bi benn waay ñëw ah ma yow day suñ ngan nga démb yaa ñëwoon dàq seen ma ne waaw mu ne ma murit ya day kontaan nañ man ne ko xam naa li nga bëgg a wax noppil yow saay-saay nga ah dégg nga wax ñu murit ya day kontaan nañ loolu boo ko defee ci man tëkk dafa am man toog mooy li nga tudd am mafhum sous-entendement li nga tudd mooy ña dawut murit wala nangam ma ne ko ku dawut murit amut murit yi de kontaan na léegi nag Eh, sama baay di dem girñeel taalibeem ba nekkoon girñeel ak alaaji Omar Gueye bu ngaraaf ñoom ñoo yoroon suma dund baay ba mu romb tib timis a ngi waaj jot sama baay ne ñu ne ko timis jot na mu ne nañu wàcc julli timis kenn yoolu dem ci sëñ Bachir Mbacke borom be jaaw bu rafet ba ne ko ah am nga gande mu ne kan la mu ne ko xalifa ñas mu ne ah nara moon a julli ci de sama yaram dafa sutante waaye ma ñëw bi mu ñëwee sama bàyyi nag dafa uteeg man làqu ci sàppe si sa mujj làqu te ku tuuti la woon sëñ Bachir daal ne ana sang bi mu ne pat bu doon man mën a xawaaw ana sang bi mu ne pat ah na yow jiite ñu naan ma nga ne di ko kii ba mu làqu ñoo ko kaay jiite mu ne déedéet man matuma ilimaan sëñ Bachir Mbacke ca mbaax nga ne kon de lii sharia wax ni ñu julli furaada kenn ku ne na julli timis nag waaye man xale ma la soo bàyyi nee soo ko dem ji jiite timis sëñ Bachir Mbacke ak mbooloo ma soo ki àndoon ak man nag cax la dëkk mu ne bokkoon ne ca xalifa keroog ñu ngi ànd mu ne ba ba ñuy tasa ba mu pare ñu gis benn xabban boo xam ne jar na million mu ne kañ lañ wax nag wi fa lañ ko jëlee sëñ Bachirou na ko kalifa Niass boo yàkkamtee nag wi ñu royal na ko ci guddi gi nga reer ci jàll boo yàkkamtiwut eh, boo yàkkamtee nga yóbbaale ko mu ne sama bàyyi toog nga teraanga ji mu ne ñi doon xasiida ñi doon kii xasaayid yi murid yi ñu baal ba damay génnewu sax baat boobu mu ne ñu ne leen jóg leen xalifa Ñas dafa indiaale ay waykatam sama bàyyi na ah waykatam man li ma dégg mooy lakal fadlu yaa muxtaaru yaa sayyidal wara dégg ma ñu ñu kañ kenn di rasulullah la ñuy kañ kenn du déplacé wu xoolal googu mat est-ce que wax ji bugguma ci rek waa ji mooy jàmbaar waa ji moo mën a wax waa ji moo kii damaa bugg rek natt ko rek fi ngeen bañ nekkoon ñoom ak fi nga nekk tey sori lool par parloo ma ne kookoo ma jur man dégg ngeen wax jët kon noonu la meloon ak sëñ Bachiru Mbàkke sëñ ba sëñ Moodu Moustapha su fekkoon ne ñëwaat na Kawlax gane si sëñ Bachiru sëñ Moodu Moustapha day indi indi sëñ Bachiru ne ko xalifa Ñas mu ne ko ah mu ne ko ngan gi Bachir moomoo ko yaa ko moom ngeen toog di waxaat moo tax sëñ Muntakaa ba buy dem Porokaan ma jaar ko nuyu ko ne ko fay mu ne ko ñii sëñ Tuubaa lu ca bokk ku nekk moo leen amel bor ma waxaat koom sëñ Tuubaa la ca bokk ma ne ñëpp a leen amel bor du ngeen fay bor kenn waaye dañ leen war di fay bor ma jógee fa dal di dem mag ñu ne ko mu mu dëkk ba nag. kii lool bëgg ci man lool ci bokki murid yi ba bërki démb bër bu set euh, kër pencum sëñ Bachiru ma danañ ko jëlee ab reer deux heures de matin ñu indi ko sëñ Isaaka mi am na lu waxut mooy gàmm daaw gi wala mutu sax daaw c'est-à-dire indi na ma reer ba pare indiwaat ay juróomi eh, kana kanat ak ay nangam ak ñetti kilo orange taal otoom téléphoné ma maa ngi ma néeg maa ngi lay dérangé de reer bi da ngaa fàtte woon lii ma indi ko man nag bokkuma ci ñi nga xam ne lu la nit defal ma ne xamu leen ma ma ne ko waaye si si Isaaka indi ñetti pom ñetti canapé ñetti nangam la lii say dessert la am na leneen loo ma bëgg wan rek waaye lu lii man lu ma ni def xam naa ko waaye nag du man sama baay la sama baay ak sëñ Basiiru moo tax ndeysaan euh, sëñ Saaliwu Mbàkke euh, xëy jàmbar jàngoo buuxante rek ñëw ba agsi ni ma xamee fayda ñëw ne ko man la arabi ñas doomi xalifa ñas mu ne mu ne nii na ñëpp dand xalifa ñas benn mooy sa baay ma ne waaw hmm. Hmm. waaw xam nga ñun ay ay artiste lañ saar lañ Hmm. man de suma ñaan yàlla yàlla mag na ko bokkoon na ci sama ñaan yàlla bala maa faatu yàlla na ma yàlla won doomi xalifa ñas ba ma teral ko ndax seen baay dafa teraloon sama baay rek commencé tari xasida bi billaahi wallaahi tallaahi waaw daal di commencé ndeke ab million la yor mel ni ku doon maye junne yor fukki dërëm <laughs> ii wa maa aybuhu illaa ibadatu rabbi nee naa way yëpp nag Cheikh Sidiya moo moo moo foofa la nag moom daal di oo diw ñu ne mbàkke yaa ko yónni yiw yaa ko yónni mu oo bëkk néeg bi ne ko yóbbu ko mu noppalu ba suba ñu waajal ko waa ji ñëw téye suma loxo ma ne ko man damay ñibbi Kaolack mu ne ma Kaolack ma ne ko oto bi maa ngi chargé ay jën jógee Ndar te suba la suñ siyaara bi mu ne ma dëgër bopp gi yëtti jaar ñëpp a ngi ci yow billaay dëgër bopp gi demal nga wax ko ko man maay dem ci moom naan ko nangamu nangam may ñëw na ah, ma ñëw ne ko ah Mbacke Balla damaa bëggoon so ndax suba la suñ gàmm gi nangam nangam ndeysaan mu ekkati loola jox ko jox ko kenn kooko jox ma ko mu jox kooko numéro téléphone du ma ne numéro téléphone waaye saa yoo bi bëggee ñëw wool kii ñu recevoir la mu gën a gaawee fekk naa ko daaray set fekk fu fu nekk kuñ ne arab yi ñas ñu ne xamees na ko fi sëñ Abdoul Ahad Mbàkke nag mu ñëw te yee ko ko li mu wax dafa waxut ne liggéey naa ak état vingt ans comme conseil spécial du président de la république Abdou Diouf problème bu mës a am Sénégal Touba lañ koy réglé maa gën a placé kii kong pour wax ko saa yu gerew amee maa ngi ñëw ci Abdou Diouf ne ko jaraw bi day doy na waa na nangam tiit lool nag waaw mu ne ma loo ci xam ma ne ko gannaaw ku dee ñu yóbbu Touba ku fe ku am soxla sa xel dem Touba dem Touba rek laa ci xam man de xam mu ubbi bunt bi <laughs> ah, xam nga doo wax demal ma ñëw sëñ Modou Mamoun Niang dégg naa màggat na lool moom la ma booleel kon pour dugg bi yomb am na wala amut sëñ Modou Mamoun mu dugal ma. sëñ ñaseen mu ne nga wax naa ko sa ci rajo waaye dima kii ne ma lu tax buñ la oowe nga naan mbàkke maa leen sëñ Abdou Aziz si ñëw ba suma bàyyi na ko Abdou Aziz mu ne ñes moom laay roy mu ne ko ndax mokkal nga subhaana lazi asra mu ne waaw mu ne taril baat bi ne subhaana lazi asra bi abdihi layla min al masjid al haram ila al masjid al aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina falaa yem bu ma continuer da ngeen koy xam mu ne ko boo demee nga bind ko sëlmoo ko boo ko defee da nga mujje ay bët sa baay xam naa ko bu baax mujjewutoon ay bët sëñ Abdou Aziz si ne ñas mais sëñ Abdoulaye ku ma woo Mbàkke rek lay wax di Mbàkke waaw lu doon tànk yi ma ne ko sa doom jéem a yónni kan Abdou Diouf mu ne lan gerew bi day Mbàkke suba la suba day lañ ne école yi Sénégal yëpp ay gerew def nii def naa def naa mu ne ma dara laa ci xamul dara laa xamul ci yooyu ma ne ko man Mbàkke ki yor yëpp yi Iba Njaay Jaaji ñoo nekkoon école normale supérieur doon fa def formation indi nga ni indi nga numéro téléphone mu mu yëkkati téléphone bi euh, euh, dóor boobu téléphone portable amagu man allo Iba Njaay Jaaji waaw ne quittez pas avec le khalife général de Mouride mu lu ma def <laughs> mi ngi pot poti <laughs> lu ma def ah loolu mën naa rey nit yi salaamaaleykum man la Abdoulaye sëñ la seen dafay ñëw léegi jógee Dakar ah yaakaar naa borom réew bi ko yónni ci man yaakaar makkib yaakaar joojee moom laa am ci yow bëgg nga dimbale ma ci bëggumaa xam loo doon ak foo bokk allahu akbar dégg nga bëggumaa xam loo doon ak foo bokk mu ne ko jox ma arab yi mu jox ma ko mu ne ma bu ma ko mayee léegi def déclaration léegi ñu rey ma lenn rek lay mën a am ñu dajale sun lan secrétaire yeeg nangam yëg yëpp sëñ Abdoulaye mooy télé mooy téléphoné car sëñ Saliou waaw dana am ko seet si fekkee fukki nit la buy juróom buy junnee nit nga fexe ba ñëw Touba noonu lañ ko téléphoné ñëpp moo leen indi ci ci ci ci faray boppam ñu ñëw dugg ci néeg ñu indil ñuy xarak teraanga xam nga Touba moom moom loolu rek lañ xam dara moo tax suma sët yi bi may jóg ñëpp jóg maam maa leen kenn du dem ndax bu ñu nee màggalu Touba yéen ñëpp da ngeen jënd mbuusu cent franc yu bële yi di ci rokkos xar yi wax naa ko sax Cheikh Abdou na ko délégation bi dama sët yi buñ ci ñëwati ndax noonu mu ne ma loolu aay ma ne noonu sëñ jox ko ku ne cent mille francs yu xonq yi dix mille yu xonq yi ba mu pare ñu ne nañ dem négocier gars yi ku ne di. wëy seen tubaab yooyu di wëy sawaa wëy wëy ma ne xay ñi kat nangu nañ ca kenn giiwu leen ñëw ne waaw li ngeen wax mu ne sëñ bi may nañ la ko ñu yëkkati téléphone bi jox leen ñuy téléphoné Dakar naan moo de moo de mot de kii bi élevé nañ mot d'ordre bi élevé nañ ko lii ci sama kanam la dama ne lu ma problème bu masa xew senegal bu doon ak dëkk bu jëm état Touba lañ koy sekkee yàllaa leen ko defal moo ne woon wajjahtu kulli lil wadudi samadi daa xidmatin li Moustapha bi Muhammadi waaw ma ñëwaat ci Ahmadu Bamba dama ne li ko yàlla may yéeme ne xam nga yontu yàlla Suleymaan dafa ñaan rabbi hab lii mulkan sëñ Tuubaa ñaanu yàlla ekkati lépp jox ko imposé ko ne ko santal yàlla ne li ma la jox musuma koo jox nit te dootu ko jox kenn mu ne ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini yaakaar naa ni ngeen ko déggee tey bokku nag ni ngeen ko daan déggee de xam nga boo ne ilayya qaada dafay mel ni moom dafa dafa ñaan déedéet dañ ko ko jox ba pare imposer ko style bi ne ko lii ngay wax mu ne ilayya qaada mu jiital ilayya muy ismu maf'ul di complément d'objet direct euh, sujet verbe bi soog a ñëw ma soog a ñëw nag man li ma yéem li ma gën a yéem ci sëñ Touba mooy fekkee dëgg rek la ñuy wax sëñ Touba woyam yi nii mu rafetee man la rhétorique arabe bayaan balaaxa ci laa spécialisé wu te naanaguma fi café nag bu ma waxee yenn yi suba si waaye maam kafe gi de maa leen café ñëpp ko xam waaw kafe gi moom ñépp a ko xam waaye ba mu ne wajjahtu kulli lil wadudin samadi daa xidmatin li mustafa bi muhammadi la kenn la ko yàlla jox lu mu joxul kenn ma ne eh, mu ne allamani rahmanu fi safina ñu ne ha mu ne bi annani xadimu zil madina allahu akbar maanaam xaadimu rasul ñëpp a koy ñëpp lañ koy ooyee waaye décret seul bi yonent bi signé muy officiel mu jox ko ko sëñ Tuubaa la ñu ne ko annoncé ko mu ne allamani rahmaanu fi safina bi anna nii xadimu zil madina ma ne boo bindoon leetar feneen fu mooy Tuubaa ne ilaa xaadimu rasul ñu ne dafa juum de da ngeen wax ji de ñoo dafa juum c'est-à-dire ma ne man la rhétorique arabe ci laa ci laa ko yéemee lool gis naa am picc ni ni ni muy defee ni tëb fii tëb fii tëb fii tëb fii maanaam ni picc mi yebee garab gi lu ko raw la Sëñ Tuuba yebee vocabulaire arabe yi ca daf koy ranger benn bu ci nekk boo xamee kii bi fa mu tegu man a man a man loolu moo ma ci rey maanaam am na koo xam ne benn waaye dafa bind ñu ne ko li nga bind baaxul ndax tanaafur la tanaafur ñi jàng arab xam nañ daf ne wa qabru xarbin fi makaanin qabru wa laysa qurba qabru xarbin qabru ñu ne ko baaxut ndax qabru qabru qabru yi dafa bëri sëñ Tuubaa ñëw ba jib ko ne min alxaqi jaa alxaqu lilxaqi fi saxbi bi xaqin mubinin laa yuaaniye saxbu ñu jox ko médaille bi maanaam doon naa gën a bëgg benn mbooloo mu restreint spécialisé ci la rhétorique arabe ma ne leen sëñ Tuubaa diw bañ ko defee dañ ko critiqué diw ba ko sëñ Tuubaa defee dafa dafa dafa jub nga xam ne daal mënta doon lu muy ndimbalal yàlla wallahu yansuru nii wal xalqu tatbau nii fi l wal bahri da nafin bila bila adad allahu akbar loolu maanaam ndimbalu yàlla ndimbalu yàlla ma ñëwaat ci tëj bi mu ne a ah, mu ne axrajtumoo nii naatiqiina bi annani abdul ilahi ak rafet ci laa mais kon fi laay toog ba jant bi so du jeex waaye mu ne xarajtu warutoon a wax xam nga xara nii mooy génnee nañ ma uxrijtu bu doon keneen uxrijtu lay wax génneef nañ ma dégg ngeen wax ja waaye xarajtu la wax xarajtu mooy ku génn génn normal loolu ñaar lay wane mooy sëñ Tuubaa yëf yi doo ko yëgalu ko woon yaram bi na ko noon du wax xarajtu yow sabti uxrijtu lay wax waaye dafa bàyyi uxrijtu ndax xarajtu yow sabti mission bi mooy lan mu ne li xidmatil muxtaari fi chahri safar cest à la rhétorique arabe jaaxal arabe yi jaaxal ñi jàng nee naa diiwaan bii sama bàyyi ko bind mi ngi nettali léegi xasiida boo xamee ne moom moo ko yóbbu moo ko moo ko def ci sëñ Touba bàyyam sant ko ko kitaabul jalaalayni sama mi ngi nii kalimatu shukrin ila xaadimi rasulillah ahmad bamba li ihdaa'ihi tafsir aljalaalayni ila alhaaji abdullahi ñës fa amara ibnuhu alhaaji muhammad ñës bi raddi alayhi fi l abiyaati taali xam nga liñ sama baay gën a wax huwa aljalaalaani tafsirun li mansibikum dama ci am toujours problème sama baay def ne sëñ tuubaa joxe yow sa bopp nga joxe yow sa bopp huwa waaw yow sa bopp nga joxe yaa ma ko jox de waaye mokkal naa yu bëri li ma mokkal genn wala mu di mokkaluñ ko gis <laughs> may fooye rek xam-xam ko huwal jalalaani ni tafsirun li mansibikum sama bàyyi ne alquran dafa ñëw pour firi la yow allahu akbar moo tax beneen waay ma nëbb leen ko nag man la maa doon wayantu sëñ Tuba ne ko yow aslamta nafsaka lil qurani yaa mbaakee waaw aslamta nafsaka lil qur'ani yaa mbàkkee fal qawlu indaka qur'anun wa sunnaanun lii mana da dama ne Sëñ Tuubaa yow aslam yow jébbalu nga ci ci alquran nga jébbalu waaw ku jébbalu ci alquran ku jébbalu ci moom ci koo jébbalu uyu leen ma waay dañ ne al bil muttasili muttasilu ku jé koo xam ne sa dundam lépp yàlla nga ko jox tubaab